Assalamualaikum chers internautes comme nous l'avons ko actualité Dakar Plateau inauguration école Bibi la ñu ngi Dakar Plateau dëkk sëñ bi nga def. maa fi rek bi lay ziar di leen nuyu di leen dalal di fas yéene déglu C'est i di wax des wa di ci tontu ci kéemtalaay des liñ ci xam te tax des Dakar Plateau nga gis nañu que actualité dañuy inauguré école bi Ndiaye est-ce que yëg nga ko. waaw yëg naa ko école Bibi Ndiaye parce que tey bu koy inauguré man je suis à deux bi de Bibi maa ngi dëkk à cent donc euh, mënuma ko bañ a yëg d'ailleurs euh, bokk naa ci doomu adama yi nga xamante ne man la école bi Ndiaye gën a jege ci plateau waaw yëg naa ko bien sûr waaw. léegi yow inauguration bi lañ si mën a wax fu mu toll nii. une grâce bi ci ci ban sens. gis nañu que ni bi ñu commencé travaux yi dafa yàgg budget bi ñu dégagé pour defar ko est-ce que population de cap Plateau ils sont au courant xam nañ lépp lu xew. waaw xam nga bor euh, en tant que école man ci ñi ci njëkk wax ci Dakar Plateau la bokk mais problème bi man sama problème du problème Bibi Ndiaye Bibi Ndiaye baax en tant que école parce que suñu egg suñu doom ñoo fay jàng ay Gambien jànguñu fa ay mal ay Maliens jàng ay Sénégalais ñoo fa jàng rawatina waa Plateau mais premier mooy dañu am lu ñu naan un conseil municipal ñoom ñooy délibéré di liggéey ak maire. yaa compris man dama laaj ay conseil municipal yoo xamante ne xamuñu le coût de Bibi Ndiaye ñaata la. loolu scandale la de. te ñoom ñooy organe délibérant yi rawatina man sama xarit bi nga xamante ne man moom laay àndal bés sax muy Pape Diouf il est conseil municipal à la ville il est conseil municipal maire plateau mais mënuloo wax le kuréel bi mu jaay tey ña Babou Touré Rebeuss c'est un conseil municipal taxaw en plein réunion ne xaw le man la kuréel bi mu jaay ay tur tout tudd fu non je pèse bien mes mots ku ko ku ko weddi nañ dem ci procureur donc may woo ci procureur moo ñu waxaat Babou Touré laa la wax Pape Diouf nee nañu ñoom xamuñu la kuréel bi mu mais problème du foofu léegi nak mu génnaat mu mu wessu le coup ñu demat ci sur le du sur la durée 11 mois lañu ñu waxoon dem na tey dem na dugg na onzième année léegi moom moo waroon jël télé bi wax né man ah lii kat lii moo lii laa ci duggee won li mo ci am li mo ci am mais premier xam nga premier li ci nek moy manque de communication bi mom mën na am sax dëgg de d'une part mais manque de communication parce que il faut que tamit nit ñi ñoko fal muy taxaw di wax population bi lan la loolu mooy problème bi dañoo for ci ay wéyam ba ne école Amadou Alassane ndoy dañ ko dañ ko tëj dañ ko doon réfectionné am ñu ne réfectionné école tiers mooy école tiers dañ ko dañ koy tëj pour réfectionné ko am ñu ne non réfectionné ñu ne ko dañuy jël après terrain bi dañ koy joxe est-ce que loolu yëg nga ko waaw xam nga école tiers école tiers man tey opposant la maa ngi maa ngi nekk dans l'opposition moom le maire opposition bi la bokkoon mais dafa daw fekki dem benn bokk yakar baye Khalifa Sall dem fekki Macky Sall li ko fa yóbbu moom xam ken xamul lan moko xam momako meun expliquer nit ñi mais liberté wor moy dafa bind ci page Facebook am génn woo nit ñi ne lan école Thier dafa am lu fa nara xew am na projet buñ fa nara tek te état moo koy dox léegi nak damay wo population pour nous nous ma combat parce que école tiers patrimoine plateau man en tant que opposant Khalifa au niveau de Dakar Plateau muy Pape Diouf ñu def suñu mbolo mu bari dem support combat bi image yi conférence de presse man ngi ci wa légui bu après le ministre de l'enseignement convoqué na Dakar Plateau pour ñu dem créé seen benn cadre restreint comité la xaw ma nu ko tuddee et cetera mais bu ñu demee ba ñëw rencontrer le ministre war nañu ñëw dellu si ci mu demandé woon mm, pour ñu jàppale ko pour école bi mu wax la ne population ah man kat ministre bi woo na waxtaan nag man nee na ma école Thiers lii ak lii ak lii ak mais bu mu ba tey l'état si total kenn xamul lan la wax ministre bi kenn xamul lan moo fa xew kenn xamul ministre bi daf ko menacé na ko eh école Thiers te ko suuf sinon lii. kenn xamul ne waxtaan ak ak leneen communication ah ministre bi kat na ma ànd nañ fa fa bi ministre quelques jours lañ ci ñu ñu ñu ñu ñu fal ministre de la pêche yamul foofu de ñu xëy ku fa dëkk ko ci Facebook wane ne école bi démolir te ku nekk xam na ni moo dàq dàggasante ci Sénégal. moom moom kan monsieur le maire Alioune Ndoye dàggasante rek lay def moom. moom bu nekkul jigéen moom xam naa ne fu mu sëyi moom day gaaw tas moom mais ba ba kenn déggul mu ngang ci kenn déggul mu ngang ci léegi nag loolu mooy loolu moo jaaxal plateau te léegi nag fii nee na ay cinq écoles la fi dajale bu dajale cinq écoles yeneen terrain yi nga xam ne patrimoine plateau la est-ce que du mujj comme école Thiers loolu la gars yi di craindre loolu la ñu tiit mais du c'est pas le cas scandale wala li ñu fa def ci xaaj et cetera suñu terrain yi nga xamante ne état dafa manqué ay terrain ñu war ko jël après mu libre ñu jël ko war ko utiliser à d'autres fins te plateau soxla ko loolu la ñuy tiit. mais yow da nga jàpp ne conseils municipaux yi ñoom askan bi amul communication. non bu grand bu fekkee da ngay dégg-dégg rek conseil municipal amul Dakar plateau xam nga fii ah ñu fi nekk nag jege jege Alioune Ndoye. barki alxuraanu karim c'est pas des conseils municipaux. billaay wallaay tallaay ay ay ay ay dóorkat a fi nekk xam nga monsieur parce que man mënu ma nangu tey genn wàll gi Diop si la ñu àndaloon bu nekkoon seen mbébét tey Alioune Ndoye du nekk maire 2014 parce que Diop si la ñu àndaloon boo demee ba ci biir nga tourné sa veste da fekk Alioune Ndoye te li sëbale moo tax nga jàll kon am na leen lu muy nuru gis nga bu ñu wax ne dëgg. ku waxul nek na naafeq mënuma ànd ak mënuma ànd ak tey Macky Sall ma ànd ak Ablaye Wade wala ma ànd ak Idriss Seck Macky falu ma ma tourné ma bàyyi fa ma bàyyi fa opposition bi dem ànd ak te bu Macky Sall su fekkonté man man mi day exemple la jox Idriss Seck laa ci campagne bi ndax ndigalu Khalifa Sall Macky Sall falu ma dem ma bàyyi Idriss Seck dem fekk ko bu fekkonté ne sama mbébé dafa jall Macky Sall nekk président Idriss Seck mooy nekk président. comme gis nañ lolu dafa fréquent li ñu wax transhumance dañuy and ak. transhumance na fekk la. ak ñak ngor. wax leen ko comme tel quel nu mu demee loolu naafeq la te deret la nekk am na ñoo xamante ne loolu la ñu ne ndam seen weenu ndey c'est des larbins loolu loolu la man du ma fi nekk di jëm à quatre chemins am na ñoo xam loolu la ñu nàmp am na ñoo xamante nag na du yàgg mukk ba ñu doon ko parce que gëmuñu loolu dañu nekk ci naaj bi yow yaa nekkoon ci kër gi man xam lu ma gëm Alioune Ndoye dafa dem 2014 campagne ak ay nit la am ci mairie bi na ànd ak ñamu campagne ñu lekk ko ñu naan ko man ànduma ak moom ma toog ci naaj bi loolu laa gëm bu joxe mandat bu ma jox bu maye bu ma maye bu bu ma sarax parce que ànduma mais tay cinq établissements scolaires yi ñu bëgg a jël. dissoudre ko ko est-ce que Bibi ndjay dina mëna population élève bi Ndiaye Il un nihiliste que lo xam ne ñu defal plateau wax deug yalla ma koy parce que du papam du ndayam du Sénégal le plateau mais problème xam fu est-ce que école répond aux normes et standards yi école wara nek cours bi dafa ndaw école bi rafet na nak machallah ces guéris là je koy en tant que maire mu parce que xalé yi mën fa daanu ñaaral bi moy mu jël ay précautions parce que dafa boulevard bi Sénégal Lamine yi

tu me dis 5 écoles yu cour bob ma do 50 mètres il y a problème mu dafa am sem dafa am euh, dafa am dafa am lycée fan la xalé yi gymnastique fan la ñu defee éducation physique. stade jege fi. doy na waar sëñ bi yoy yep ay paramètres la yo xam dañ ko war a légui nak mom comme mom dafa yor bitigu mbag di dajale ay milliards nan dama am bénéfice ay 1 milliard et cetera jappal baye

léegi nañ koy ñaan xaalis boobu nga denc onze milliards yi jëlal ñu ci ñaari bis wala ñett nga dajal ñu ko jëlee xale yu rëbës yóbbu leen Bibi Ndiaye ñu jàng ñu wàcc nga delloo leen. mais tey cinq école yooyu tey établissement su ñu ko dindee terrain yi yow la nga loo yaakaar lañ fi war a mën a def. terrain yi daal il a l'occasion bu subaa mu jàkkaarloog Macky Sall su fekkee Macky Sall dina ñëw parce que man gëmuma ne ba tey ji Macky Sall dina ñëw parce que Macky Sall mënul toog ci télé bi janoog ñun nañu coronavirus dafa am Sénégal dafa am Sénégal gis fi benn cas rassemblement populaire dañ koy dakkal di ñëw fii di dajale ay mbooloo ñu taaxuraan di tëgg ay sabar kon le premier de sénégalais na wane exemple bu fi dajale ay mbooloo di dajale nit ñi foofu coronavirus bi dafa am kon. mais coronavirus bi fu mu toll nii beneen beneen débat te nee nañu euh, patients yi amatul beneen ka infecté mais yaakaar naa la vie peut continuer. sëñ bi c'est la plus haute haute. bu exemple na ko tàmbale ci boppam. bu ñu kenn yàpp ñun du ñooy xale bu ñu demee ba ay ñu de ñu ko jege naan magal Porokhane nañ ko annulé gàmmu Tiwaawan et cetera rassemblement tappale yi ak ñàkk fayda yi. da nga euh, bi bu mu am. bi dafa war am benn transhumance la boo xam benn transhumance la boo xam dafa boo nekkoon ci Khalifa Sall daw kenn xamul dañ ko épinglé ci ci euh, ci ay audit kenn xamul dañ ko menacé kenn xamul lu ci xaw.

c'est confirmé que dina ñëw nañ ko ñëw tàccu nañ ko ñëw ganale nañ ko ñëw dalal mu ñëw inauguré suñu doom yi ñoo fay jàng suñuy sët suñuy jarbaat bu bu demee ba pare nag li ci des nag moom mu soo ko def conférence de presse mu ñi koy ñaan nag tamit mu profité wax Macky Sall ne ko école yi ñu naan transfert après suñu terrain yi ñu bàyyil ñu ko fi parce que terrain yi ñun soxla nañ ko. ak budget euh, kii bi kii bi bi njaay bi fekk euh, travaux yi. non loolu conseil municipaux yi la ñuy interpellé ñu def seen liggéey nga xam ne moom la leen population bi wóoloo moom la leen population bi doyloo pour ñu jàppale ñu si leeral ñu ñoom ñoo ñu ko war a leeral parce que ñun ñoo ñu fa teg loolu rek la waaw. ni nga gisee ni askan bi ñu ngi toogoon nag benn waaye bu dëkk fii Dakar Plateau joxe na xalaatam ci inauguration bi war am suba école yi ñu war a jël yëpp. Euh, éliminer ko boole ko mu nekk benn école muy Bibi Ndiaye. jërëjëf askan wi.